Eh, Birame Souleye moom euh, wax nga ci lu bari léegi dañuy wéyal euh, ñëw nag euh, ci démb démb yaa ngi woon ca marche Pape Alé Niang bi presse bi woote woon sa teewaayu foofu ak taxawaayu presse bi parce que doon nga leen ñaax ci ñu jóg ngir mën ko taxaw waaye daf mel ne loolu am na mais aussi mbiri Cheikh Pape Alé Niang bari na ay commentaire Cheikh baare ci mel ne ay Moustapha Diakhaté bi ñuy bëggee mu génn am na ñu jàpp ni dafa def faute boo xam ne war na ko mën a téye ci kaso bi ndaxte dafa génnee lu warul woon génn loolu tam bëgg nan nga wax sa xalaat. sujet bi bu njëkk bi nag bu doon sulle bi dafa laal sujet politique boo xoolee du Pape Alé Niang bi mën nga cee jàngat mais pas mu politique man nag moom moo laa wax ne dama damaa bëgg sujet politique boobu moo moom dafa am sujet yoo xam ne su ci kontaan daal bu doon lii nag ci ñëpp xam mooy ñëpp xam nañ ko actualité la Pape Alé Niang jàpp nañ ko journaliste yi am na ci ñoo xam ne dañuy xiini miina nee nañ Pape Alé dafa faral diw moo tax mënuñu ko mënuñu koo jàppale waa léegi may laaj journaliste yi nga xam ne mënuñoo jàppale Pape Alé ñoom kan lañ faraloon mënuñu koo jàppale. waaw ndax damaa yaakaar ne ku mel ne Sarle Faye ku mel ne Mamadou Ibra Kane ku mel ne Pape Sidi Fall ñooñu. nga xam ne bu fekkee faruñu fenn ñoom mën nañoo ñëw sol seen dàll jàppale Pape Alé parce que ñoom ay mbokk journaliste lañ. waaye léegi ñi nga xam ne ñoom ñi nga xam ne ñoom dañoo mën ñu ne dem ci place bu ñuy xeexale Pape Alé. parce que Pape Alé dafa dafa faral diw léegi ñoom dañoo contre diw wala dañoo faral keneen koo xam ne ak ci Pape Alé faral dañoo jàkkaarloo saa boo xoolee koo gis mu naan la Pape Alé daa faral diw rek moom itam faral diw tax mu naan Pape Alé daa faral diw kon ñaar ñu faral lañ léegi nag li am solo mooy journalisme moom démb wane waat na boppam ñoom ñëpp génn nañ def nañ ko direct wal fajiri def ko direct Sud FM ak journaliste seen seen yëpp ñëw nañ journaliste yoo xam ne caaxaan génnewu leen seen bureau yi ñu leen taxaw ko mel ne ay Mamadou Ibra Kane loolu nag presse moo ko defal boppam dañ bañu dañu bañ a déglu ñenn ñi parce que ñu bëree bëree bëri amuñu problème ak Pape Alé xam nañ ne Pape Alé journa bon journaliste la man ma ñëw teg seen loxo seen kaaniñ ne Pape Alé tooñul mais Ousmane Sonko nañ bañ bañal boo xam ne jàpp nañ ne sëriñ chroniqueur xale ku yor Facebook maanaam képp daal koo xam ne moom maanaam yow yaa nga waxtu Ousmane Sonko jàmm maanaam deel waaw loolu moom daa am looluy dëgg ku ma ne Moustapha Diakhaté yooyu bët la yor voilà moom ñaññul Pape Alé moom dafa am haine ci Ousmane Sonko képp koo xam ne buñ doon tudd na sa juróom-ñaar fukki maam yàq Ousmane Sonko am na lu ngeen bokk Moustapha Moustapha Diakhaté nee na baaxoo dégg nga parce que da nga am lay bokk ak Ousmane Sonko képp koo xam ne dañ ne woon sax suñ ñëwoon sa juróom-ñaar fukki maam daa noonoo woon ak Ousmane Sonko bu ñu ko doon calcul ba ci juróom-ñaar fukki maam mu mën a génne genn noonoo mu wóor ko ne yow yaa Ousmane Sonko am noonu baax nga parce que da ngaa noonoo ak Sonko maanaam loolu mooy logique Moustapha Diakhaté waaye nag Moustapha mënoo ñu nax ñu ngi lay xool bu baax tàmm nga saa doo wax ci télé naan ñu wax dëgg tawaañ fi wax lu ñuy xeebe te boo paree li ngay wax dara du ci doon dëgg li ma talbisuuna al haqqa bil baatili wa taktumuna al haqqa antum taalamuun waaw mooy lu tax ngeen jël dëgg gi di ko nëbbu di ko jënd fen te fekk xam ngeen ne lii mooy dëgg Moustapha Diakhaté man tuumaa lu ma ko dara mu ngi nii li ma lay wax mu ngi nii dañoo xëy suba ñu dégg nañu ne capitaine Touré dafa falsif dafa dafa fuité PV Omar Gueye mooy dévier senegal doo génnee journaliste doo génnee chroniqueur doo génnee gendarmerie doo génnee avocat doo génnee juge boo xam ne daa taxaw publiquement ne man nii maa wax ne capitaine Touré moo génnee PV bi kenn tuumaalu ko ko ci réew mi gendarmerie toppewu ko loolu enquête ko pour loolu journaliste yi wax binduñu ko waxuñu ko benn problème moo am mooy dafa am dafa am ak juuyoo gu am xam nga lu am capitaine Touré dafa am problème ak gendarmerie tombanteeg problème mu PV am ñu biiri yaakaar ne PV bi mooy problème bi Moussa Diakhaté sax loolu la foog capitaine Touré dafay auditionné Sonko moo def plainte bi fan yooyu nee na mu yëg dafa am ñu koy topp guddi bëccëg suba ngoon fu mu dem ñu koy topp li sur li gendarmerie digle mooy nga bind sa ARS ñu la féete kaw mu bind commandant ne ko moo commandant man de yëg naa ne dafa am ñu may topp. te gisuma lenn lu war a tax ñam ñi may topp te ñi may topp nag wóoruma ñu jël sama bakkan parce que ni may topp metti na waxul dara mu toogaat lu yàgg gisaat ne dañut mu waxaat ko ko defut dara mu jël ay responsabilité mu daw dem tuubaa bi mu demee Touba teel wax ci presse bi li problème bi demee balaa ñu koo rey pour bañ mu wax loolu mooy affaire capitaine Touré Moustapha Diakhaté nag daan ne PV e bi fuité capitaine Touré la traître la. dañ ko war a dàq gendarmerie. da daa mu fekk ko ba muy dem IAM école publique privée nga xam ne di publique mu dem fa ñu jël ko di ko jàngale Moustapha Diakhaté topp ko ba foofa daal na ma génn fii ndax ab traître la warut a jàngale. ci loo xam ne biñ demee ba gendarmerie di enquête. bi ñuy enquête tuumaaluñ capitaine Touré ne ko da ngaa fuite PV maanaam gendarmerie topp ñu loolu capitaine Touré. biñ koy atte atte wuñ ko ci loolu. attewuñ ko ci loolu buñ koy daan tamit daanuñu ko parce que dafa fuité PV yaa ngi dégg te biñ koy daan daanuñu ko parce que da ngaa tooñ gendarmerie da ngaa wax te waroo woon a wax lañ ko wax daal daal di koy daa teg daanu kaso weer Macky Sall moo daan capitaine Touré capitaine Touré ne su makki Sall waruma daan ci lii dem cour suprême def appel yoon waxagu ci. Moustapha Diakhaté moom day incarné ne républicain la. mu kon ñu condamné ko tuddee ko traître accusé ko lu ko neex te yoon waxagut bu yoon waxee léegi wax lu wuteeg la Moustapha Diakhaté est-ce que dana ko tuubal. Mm-hmm. léegi loolu lépp am na. kat mm-hmm. Moustapha Diakhaté mag la magum dëgg la muñ ngi dëkk bi. Mm-hmm. lu am ci yoon rek dina ko lu fi nekk ci dëkk bi da koy wax ci yoon. d'accord jàpp nañ Pape Alé Pape Alé dafa fëkkee parce que Pape Alé dama koy gis mook Sonko léegi nag ku ñuy wax Serigne Bassirou Gueye bokk ci même dossier bi bu capitaine Touré nekkoon gendarmerie def enquête génnee na sëriñ Bassirou géey bi Adji Sarr waxee ba dem ka commandant Mbengue dafa jël PV mooy ñu mu dégloo Adji Sarr Adji wax ko ñu jël PV boobu yóbbu ko tribunal comme ni ko yoon santaane nga xam ne procureur moo ci war a def liggéeyam Serigne Bassirou Gueye ne te te li ma lay wax nii gendarmerie moo ko enquête. Jean Baptistin Tine mi nga xam ne mooy généralu gendarmerie Sénégal moo ko enquête moo ko bind moo ko signé mu ne Serigne Bassirou Gueye bi mu jëlee lépp Adji wax mu liir ko daf ne ko ah yu ne li mu fi wax mënta tëjlu kenn li mu fi wax sax li ci nekkul dëgg dafa bari daal di jëlaat PV bi ci boppam ne ko yóbbulaat ko sandar yóbbuwaat ko gendarmerie te loolu kenn mosu koo gis ci àdduna PV bi dem tribunal waññi ko waat PV bi demaat mu ne ko dindil lii dindil lii dindil lii jël ay lien ci téléphone am xool ba gis ay ay jigéen ay ay jigéen ñu sol ñu bon mu yónnee ko ko ci téléphone ne ko téléchargé ko nga foto ko defal ma ko ay photo taf ko ci PV bi loolu commandant Meng moo wax ne Serigne Bassirou Gueye moo ko ko sant mu ne ma def ko ni ma ko Serigne Bassirou Gueye sante Ousmane ko dox ba jot ci loolu yëg ne kat moom ndekete li ko doon taqal Serigne Bassirou Gueye moo jël ay photo dolli ko ci moo dindi ay wax ci yëf yi dolli ci ay wax ba ci prélèvement bi ñuy wax Serigne Bassirou Gueye ko ci def waaye Adji Sarr yóbbu ko Ousmane Sonko waaxu porté ko plainte xanaa nag Moustapha Diakhaté li mu amoon ci capitaine Touré moom tey am na lu ko gën a leer mu toog sene Seneweb moo tax ma ne la paa bi naafeq la nii laa koy waxe mu toog sene Seneweb mhm. journaliste bi ne ko sëriñ bi dañoo gendarmerie dafa enquête wax ni sëriñ Bassirou Guèye da doon soppi PV yi mu ngi nii Ousmane Sonko dem na pelante ko loo ci wax mu ne loolu sama yoon ci waxuma sama yoon nekku ci bu fekkee Ousmane Sonko dafa gis na sëriñ Bassirou Guèye da ko tooñ na ko porte pelante sama yoon ci aha capitaine Touré sa yoon a ngi ci traiteur la naafeq la daa ban bu te jàngal ay xale Serigne Bassirou Gueye changé PV en tant que procureur ëpp responsabilité capitaine Touré fuuf nga ne yow loolu sa nekku ci. ay tuuma léegi lu tax bi mu nekkee tuuma ci capitaine mu mu jël di di ci wax lu bon. bu dee Serigne Bassirou Gueye mu ne yoonam nekku ci xam nga naafiq mooy muzabzabiina bayna zaalika laa ilaaha illallaahu wa laa ilaaha illallaahu dafa waroon a maandu comme ni mu maandoo ci sëñ Bassirou Gueye. yamale lépp lépp wala mu wax ci sëñ Bassirou Gueye xalaatam comme ni ko doon ci capitaine. kon du fa waaw loolooy moo tax ma ne la góor gi naafiq la man ko ko mun naafiqoon bu mag la te mun da nax nit ñi nit ñi dañ na tekk di la seetaan man loo wax maa ngi koy déglu yaa ngi dégg de capitaine Touré mën ta nekk IAM di jàngale école privée waaye sëñ Bassirou Guèye mën naa nekk procureur général nekk biir palais école privée la sa yoon nekku ci pale nag Sénégal yëpp ko bokk public la ñoo ko moom sëriñ Bassirou Guèye fa la nekk bu doon daa am lu wax fee la ko war a waxee fi mu war a wax nag bu waxee day jàppale Ousmane sonk te Moustapha Diakhaté lenn la mooy kuy jàppale Ousmane Sonko buñ lay tuumaal mbaax baaxoo boo woppee yàlla na nga dee parce que gis nañ fi ku ku ànd ak Ousmane Sonko kuñ la day jaa ànd ak Ousmane Sonko dee Moustapha Diakhaté di wax luy tax mu dem sawara Sénégal ba Sénégal daj musuma gis ñu tëj doomu aadama même waa APR buñ tëjee ab opposant dañ naan ah kasokat duñ ko yéene kenn yàlla na ko yàlla génne ci xat-xat yi waaye nag boo ko teg seen i affaire politique. Moustapha Diakhaté laa mas a gis ñu tëj Cheikh Omar Diagne ak Karim Xrum Xax mu ne yàlla nañ fa yàgg kenn du génneewaat benn vidéo doomu aadama ab jullit borom ba jaaw toog ci banc ab siis ñi laaj la ci sa moroomum doom sa moroomum doomu aadama nga ne yàlla na yàgg ci kaso bi tam nekk présomption des innocence xamagoo ba xam moo tooñ wala tooñu Moustapha Diakhaté wax loolu toog ne capitaine Touré bon la parce que PV bi la dégg ñu ne moo ko te amu ci preuve. bëgg a yëgal Moustapha Diakhaté ne ko mënta nax nit ñi. dañoo am jot am connexion. mu ngi kay Olof Ndiaye moo ne ko wax feeñ. karate naa la jàpp naa la. bu dee da ngay jaay fulla ak ak am fit waxal ci sëñ Bassirou Guèye ji comme ni nga doon waxee ci capitaine Touré. bu ñu daaneel ci ci mondial bi mondial bi Sadio Mané moom léegi wër na ni moom du dem ah léegi nag dégg nañ ci ñu ne ñu ne ay sëriñ bi waxoon nag ak c'est vrai waaw léegi lu ma la bëgg a laaj d'abord. bëgg naa damay boole ñaari laaj yi après nga tontu ma ko doo wax ci yooyu gars naan diw mooy gañe diw dee gaañu ne sëñ bi yow mosuma la dégg ci yu mel noonu ak gaañu gaañu Sadio Mané bi ñi neen dañ ko war a remplacer ñi ne duñ ko remplacer ak lan la mën a wàññi ci équipe Sénégal bi loolu daal bëgg naa nga tontu ma ci pour ñu daanale ko nag. sëñ Omar tey nag. amoon it lañ bëggoon waxtaanee. mais tey dama xaabaabal ci biiram su lay bi. xam naa ma may gars yi rek numéro yaa ngi nii ci kaw. numéro Touba bi. 78 141 55 22. Dakar bi 610 81 81. loolu mooy numéro Dakar ci sama kër fii. am nañ boutique Mbour ca Osan ba boo taxawee ca Osan bi rek nga téléphoné ci numéro bii ñu bind Mbour ci ban écran bi. Mhm. boo taxawee bu fekkee Thiès la kër Mbay Mbay Diouf foofu di jàkkaarloo kër Mbay Diouf foofu la Assane nekk boo taxawee ci kër Mbay Diouf rek wala ci course bi boo téléphoné rek ñu jël si la numéro yaa ngi ci ban écran bi. bu dee Mbour. Mbour 77 125 55. 77 125 50 50 mooy Mbour 77 125 50 50 bu dee Thiès 78. 531 mooy nga xam ne dañoo am seere dañuy toog ñaari fan duñ dem toilette wala ngay am ballonnement biir buy def kur kur kur kur kur lekk du rees. wala nga gis ñoo xam ne duñ xiif suba ba guddi duñ xiif wala nga gis ñoo xam ne bu ñu dem toilette air rek la ñuy génne wala ngay def boo le booy dem toilette di génne deret wala fi ngay demee toilette di génn di fullee ko mel ne demu kaay àllu fas loolu mooy hémorroïde interne voilà bu dee góor day delloo awraam mu mel luy gàtt wala nga mën a nekk ak jigéen pendant quinze jours ci néeg du ngeen sëy loolu mooy hémorroïde interne wa day def loolu góor wala booy sëy doo mën a yàgg ci sëy bi maanaam da ngay sëy da ngay war a sëy deux minutes une minute rek nga daanu wala booy ta booy sëy problème mu esa jóg jóg taxaw day jafe lool ci yow loolu tamit problème mu kàttan la lu mu ci mën a doon dañ la traité hémorroïde bi ci ñetti fan bu dee ngóor a moom boo ñëwee benn fan ñaari fan ñetti fan ñeenti fan juróomi fan plante yu normal lañ lay jox nga naan ko ngay nelaw di lekk di di lekk di digérer di dem toilette di sëy normal te boo ko xasee ba jël garab yi bu soobee yàlla mën ngaa dund dund gu yàgg te dootoo amati problème mm-hmm. parce que sëñ euh, Seydi sëñ sëñ sëñ Muntaga euh, Seydi Nooru Taal moo daa wax naan góor guy lekk laax lu guddi soo ko dee lekk mu ne boo de mën ngaa dund ba deewaale ngóora problème mu lekk ak problème mu ñu désiré moo tax góor ñi ñàkk ngóora léegi mm-hmm. ak ay problème stress ak yooyu yëpp mais garab yi da koy faj ba mu wér am na Thiès am na Touba am na Mbour am na fii Ndakaaru ci kër gi kon noonu demee numéro yaa ngi noonu léegi nag kon loolu laay tëjee lu tax dama ci wax dama cee xamul dara waaw yàlla moo xam <laughs> la ci lay ñëw ñun lu am ba noppi daal la ñuy wax daane waaw waaye du ñu yàlla yow ñëwee place yàlla moo tax ñun wax dëgg yàlla ay nangam day am ak yooyu moom saa bu ñu rëccee ñu wax ko sax xëy na ay mbir la rek waaye du du suñu suñu objectif di jéem a xam li xew suba pour di ko wax nit ñi ñun ay nit lañ comme nit ñi rek voilà mécanicien bi ni mu xamee mécanique nga mën a indi oto mu defar ko ñun noonu lañ xamal dara ci yoonam doomu aadama ci saayir ak baatin comme sangat ubbi ko bayre wërsëg wala nga ñëw am problème mu feebar ñu faj la waaye tegtalewul ne dañoo nekk leneen dul ay doomu aadama loolu kon noonu la demee Sadio Mané léegi dama ciy def lu gàtt mooy bëggoon naa sax du ma waxtaan ci football waaye naa ci may tuuti rek mooy léegi Sadio Mané leer na ne bokkut léegi nag Sadio Mané bu bokkut ci équipe nationale Sénégal ban lecture lañ ci war mooy am nañ jour bu manqué boo xam ne ñun suñ bit yëpp Sénégal ñetti problème la ñett yëpp dinaa ko wax benn problème bi mooy suñu bit yëpp Sadio Mané koy dugal match boo am Sadio ko dugal Coupe d'Afrique trois match njëkk def benn bii lañ ci dugal penalty Sadio Mané ko dugal contre Cap-Vert Sadio dafa dugal contre Burkina Sadio Mané dafa dugal demi-finale mooy contre euh, Guinée Équatoriale Sadio Mané dafa dugal bit bi la jox Coupe d'Afrique bi Sadio Mané moo ko dugal bi ñu jógee foofu match officiel yi ñu amaat dañoo dem Égypte dugaluñ ñu ñëw Dakar Sadio Mané moo dugal bit bi la qualifié la Coupe du Monde ñu amaat fi match contre Guinée foog naa trois bi Sadio maane dugal ko contre Burkina non kii Rwanda la xaw kii Rwanda defe naa 1 la Sadio Mané moo dugalaat maanaam ñun suñu dix dernier match yi ñu am bit yëpp Sadio Mané ci tànku Sadio Mané la jeexe kon benn jour boobu boo ko amee footballut benn handicap la nañ ko nangu deuxième handicap coupe d'Afrique bii jàll man damaa amoon confiance bu bari ci équipe bi parce que booba jour yëpp dañoo taxaw bi ñu jógee coupe d'Afrique nag xaw ma te ñoo xon xaw ma lu mu doon mais suñ jour yëpp neexleetuñ ci seen club yi amuñu benn jour buy football quatre-vingt-dix minutes yu mat sëkk ci sa équipe Mm-hmm. gisuma ko Souleymane euh, Elimane Ndiaye laa ñu gis te kooku deuxième division la nekk kon donc mënoo ko jël maanaam jàngat du kii lu logique mais boo xoolee amu ci benn joueur ba ci Koulibaly mi daan football quatre-vingt-dix minutes footballatu ko dégg nga Pape Gueye am na ci ñoo xam ne bi ñu jógee Coupe d'Afrique ba léegi benn minute mosuñu ko dugg ci terrain football ko te ñu ngi ci liste bi kon ñun équipe bu ban la actuellement nii équipe bi ñu yoroon Coupe d'Afrique physique bi ñu amoon mënatuñ ko am parce que joueurs yi yëpp ñëppay nekk ci banc bi loolu mooy dëgg loolu kon deuxième problème la troisième problème bi mooy ñun dañu tàmm nekk ci benn équipe maanaam coupe du monde bi jàll Japon Équateur ak équipe yooyu mënuñu woon quoi léegi nag coupe bi jàll suñu poule ak Cap Vert Burkina yooyu yëpp ñun ñooy nekk faveur ñooy wut bit di jéem a dugal waa ji di jéem a fayu man damaa mës a gis coupe d'Afrique Sénégal bi ko Aliou Cissé yoree ba léegi. ñu mane a Sénégal un Sénégal fayu mësta am benn yoon mësuma gis ñu mën Sénégal mu marqué mu mën saa boo ko mënee un zéro match bi jeex na foofu lay continuer du fayoo te léegi nag match yi ñu jëm dañoo bokkat benn équipe boo xamante ne daf ñu daf ñu ëpp doole ni ma ko mën a waxee mooy. Pays-Bas Pays-Bas Hollande bu dee ci logique football bokkuñu. moo ñu ëpp doole. di bi ci des mooy dañoo bokk ak équipe pays organisateur. Qatar. man damaa gëm ne doole ji mu yor ba organiser coupe du monde bi doole jooju yor na ko ba mën a génn poulam parce que football nag bu la bu ñu la waxee ne lépp ci règle lañ ko teg du dëgg ndax Qatar dafa bëri alal même bu fekkee équipe bu la boo xam ne dañoo bëri alal daal ci gàttal moo tax ma ragal leen léegi nag ñaari match yooyu moom mooy suñ problème match Qatar ak see guñ ci mais bii moom man li ma ci gis mooy comme Sadio Mané ñëwut te physique joueurs yi doyut nañ taxaw suñuy camp bu ñu amee contre attaque baax na buñ ko amut ñu jéem a samp match niil jéem a lijjanti ci Qatar euh, lijjanti fa beneen beneen beneen beneen beneen beneen kii bi ci des mais Hollande moom boo génnee ah euh, da ngay waaw mën naa wóorut dal waaw man damaa gëm match la boo xam ne dañoo war a taxaw naxante ndànk-ndànk football football africain tulli bal yi fexe ba ba niil match bi wala ñu am benn contre attaque dugal ko taxaw suñuy camp eh. waaw loolu laay conseillé Cheikh Bara Ndiaye ñoom Cheikh Bara tulli quoi yow football yàgg ba moom lay lay <laughs> ñoo fi indi ñu koy jaajëfal bu baax a baax di ko gërëm mi ngi noonu wax nañ ci lu bari ah mi ngi noonu jëmoon ci mbiri actualité bi ak euh, li ñeel coupe du monde beeg Sénégal ak euh, li jëm ci euh, Pape Alé Niang ak Moustapha Diakhaté ba ci Birame Souleye Diop kon di gërëm baax Ndiouga Fall. Adama Ndiaye ak euh, ñoom Ibra ak euh, Oustaz ah moom mooy suñu sëriñ mooy ñaanal kat yi ñu koy jaay bu baax du nuy ñëpp di leen euh, gërëm rek ba beneen yoon incha allah di ñaanal Sénégal nag mu am ndam ci joŋante bi ñu jëm mbokk yi jërë ngeen jëf.